bu maanee yegsee moo ne dina dem ndax yàgg nañu dégg ñuy wax taxawaayu soxna si ci ci sëñ bi ñuy biral àdduna ci li ma njëkk a wax mooy njabootu Ana Faye ci ginnaaw jëwriñ Mbackiou Faye la ñu tënku ñu ngi doogan a génn di wax ci télé walla di dox jëmale ko si si yoon bi pour leeral ndax li ñuy njëkk a leeral mooy soxna Anna Faye 1883 la gane ci àdduna mu ngi génn àdduna 1962 bi muy génn àdduna muy fee boo xamante ne ñëpp war nañ ko xam ca Cees la génne àdduna ca ñetti fan yi mu yégee ne dina dem liñ ciy mën a biral mooy toog na ci kanamu njaboot gi fàtki ne bi teewee euh, jotaay bi mu ngi ci yoon bi di ñëw mu toog mu daldi ree njaboot gi ne ko looy ree mu ne leen sama góor gi moo ma jël si muy Cheikh Ahmadou Bamba ndax cheikh bi loolu la ko fayee ba muy génn àdduna mu ànd ak moom ah, sëñ bi rekk ko xam mais may biral ne soxna soosu li ñuy wax ci moom ci taxawaayam ci ginnaaw sëñ Touba lu wér la mais taarix taarix aussi dinañ ko jubbanti ndax ci taarix ñu ngi dégg ñu naan soxna Ana Faye soxna gendarme Ibra Binte Gueye la loolu nekkul soxna Anna Faye mësuta nekk soxna gendarme Ibra Binte Gueye soxna Anna Faye ñi mu séyal ay nit ñu weex lañu soxna Anna Faye ca jamono jooju mu ngi séy tubaab bu ñuy wax Bonnet monsieur bone ba mu séy ak monsieur Bonnet ba kooku génn àdduna mu sey ak tubaab bu ñuy wax Saint-Plancard donc ci taarix ñu njaboot gi taxaw ngir jubbanti wax yooyu ñuy dégg te soxna Anna Faye tey njabootam dingeen gis daanaka ñu ci bëri nit ñu weex lañu loolu moo koy moo koy firndeel ñi nga xamante ne moom la ñoom la seyal ba ni muy génn àdduna njaboot gi yëpp a ngi fi nag ku ci nekk am nga sa représentant ci biir njaboot gi ñuy ñuy ñuy fësal suñu taxawaay tey euh, sëñ bi lim ñu fayee moo ci njaboot gi daanaka ñëpp tuub nañu soxna Ana Faye ba muy giseek sëñ bi yàlla dafa def ñaari jigéen laam ak ñaari góor bu muy giseeg sëñ bi dafa fekk ay càmmiñam demoon tuubi loolu mu nekk euh, loo xam ne war nañ ko wax aussi euh, mbooloo mi ñu ñu xam ko